jox ko Cheikh Mamadul Bachir ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa xaaj mbirum imam ratali siin ba wàcc ma daan naa la woon ku daal kaw ngay féete président def nga lu kenn deful ku def lu kenn deful am lu kenn amul sa loxo bii sëñ si di jàpp dalal sa xel ñun ñëpp ñu ànd doo déglu Cheikh Mamadul Bachir moom Cheikh Abdou Khadir yi maa ngi teg bu ëllëgee nu ma mel nag sa baaya sa baay rekk la am bismillah bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamiin sayyidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala aalihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin wa radiyallaahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf faxri diine wal watan mawlaana al abdil xadiim ahmad bni muhammad bni habiibillah wa baad fa yushiduni an atanaawal kalima bismi cheikh Mouhamadil Mountakha alxalifati alaam li tariqati almuridiya xafidahu llahu taala wa raa muraxiban bikum yaa faxaamata rais wa shaakiran lakum ala haza alinjaas alazim allati yuaddu qafsatan muhimma fi sayri bilbalad naxwa altatauri walijdihaar kama annahu xudwatun azima fi taamiri al ardi allati xuliqna min min ajlihi huwa anshaakum min al ardi wastamarakum fiha wa huwa kazalika awnun muctabarun lilqiyaam bil amri alwaarid fi qawlihi taala famshu fi manaakibiha wa kulu min risqihi falakum minna jamiican jasiilu shukri wal imtinaan ala haza alwajibi alwatani allazi anjastumu wa jasaakum allahu an sénégal wa zawiha kulla xeyrin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jëli ji yi bokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba ci kaw suuf ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci kilifteefu rakkam di jëwriñam sëriñ Sidi Mbàkke Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la fi yabal mu teewal ko ci jataay bi jox ko kàddu gi mu wax ne nañ wax ci turam jot jotle kàddu yi sëriñ bi ak i cantam kon ci turu sëriñ bi président de la li Macky Sall sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ak mboolem délégation bu mag bi nga àndal bépp di la dalal jàmm ci liggéey bu rëy bu am solo bii nuy daloo tey mu Ila di autoroute bi lëkkale Touba ak Ndakaaru te suñu kilifa gu baax ga Cheikh Sidi Moukhtar tegoon xeer wi ba tey jii ci dogalu suñu borom Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ubbi ko ànd ak mboolem njabootu Serigne Touba gi di jéego bu am solo ci doxug réew mi waaye mu bokk ci li yombal sunu mission nun doomu adama ci kaw suuf mooy dundal ko waaye itam di dimbale di ñu dimbale ngir nu mën a taxaw ci ndigalu sunu borom li mu wax ne fantashiro fil ardi wabtaxu min fadlillah ak li mu wax ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi te mooy nu génn dox ci suuf si wër xéewali gëstu njariñ yi ngir jariñu ci ak jariñu ci muy loo xam ne ci jamonoy màggal dana wàññi bu baax coonoy nit ñi sëriñ bi na kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm mi ngi sant bu baax itam mboolem njabootu Serigne Touba gi ci wuy bi ñu ko wuy di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne seen maam ya Serigne Touba lañu ñu àndaloon Serigne Touba tofal leen mbooloo sëriñ bi neen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mboolem mbokk yi waaye di gërëm mboolem taalibe Serigne Touba ci seen teewaay bu rafet di la sant bu baax nag di sant bu baax itam mboolem ñu deen liggéey ak di ci yëngatu ba liggéey bi mën a sotti ni mu sottee ci dëkk bu tedd nga xam ne Serigne Touba da koo sos ala ususin min at-taqwa min allaahi wa ridwani muy gëm yàlla ak yaakaar ko ak xeeñtu ngërëmam ba yàlla may ko fi mboolem li mu fi bëggoon lépp Serigne Touba bi mu sanc dëkk bi ay rab la fekkoon ak gott bu lëndëm këriis bi mu fi dikk wut suuf fu mu baye wurut suuf maam waaye dara toxu foo ni ñëw lu dul dundal diine ak jaamu yàlla bañ koo booleeg dara Serigne Touba daana wax ne li tax ma sañ dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi daana wax ne li li tax ma fonk Touba ak Daaru Salaam te duma leen jamale ak feneen mooy sama yéene ju sell ji ma am bi ma leen di sanc ñoo fi andi ngir dëbuwuma fi suuf maam mbaa wut ma fi wut barab ma baye dama ko sanc ngir jaamu yàlla te def ko ci ndigalu yàlla aku tànnam sëriñ bi nag bi mu sancee dëkk bi dafa ñaan suñu borom ne ko nanga ma may Tuubaa mu mekk mu mel aljana wa chaal ilaahi maskani Tuubaa abat mithlas mi haabijaahi xayri man habat moo tax lépp lu nit di soxla ba dunda mën a jag mel ne aljana ci kaw suuf Sëriñ Tuubaa ñaanal na ko fi moo xam ci saahir la wala baatin wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa man jan min bidaa ñaanoon na it mu doon barabu xam-xam ak leer ak jindi ko واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ñaanoon it yàlla def ko barabu xéwal ak wërsëgu lew ta dagan wa risqa hajjal atibal xalaali fi lu usri wal yusri ala tawali lu àdduna tartar ak lu mu jafe-jafe yàlla di leen defal wërsëgu yaatu talew bu faw ndax Sëriñ Tuubaa nee na yàlla defal na ko du yëg mukk naqari jamono du yëg xat xat-xati jamono wali siwaaya yantahi dayqu saman waaye nag lu mu gàtt-gàtt nu fàttali ko tuuti ci waxi Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne dinaa leen ji danaa leen jàngal juróom mbir yee leen ci ñeenti tomb jàngale mu njëkk mi danaa xamal boroom xam-xam bi ak woroom xel yi loo xam ne ca dalil ak burhaan yu leer lay tegu loolu mooy nit mënta génn ñett ñi njàccaar silmaxa ak ku gëlëm mu ne njàccaar daa war ji di jiitu di jiite tey wommate jëm ci yow njàccaar nag mooy ku mën a ràññee lu baax ak lu bon kooku nag moo mën a jariñu tey jariñe silmaxa daa war di topp ci ginnaaw njàccaar fu mu ko jëmee mu aw fa silmaxa nag mooy képp ku mënta ràññeel boppam li baax ak li bon waaye saa su nangoo wommatu ci ginnaaw njaacaar ci la tànni lu baax bàyyi fi lu bon kooku it kenn mënu koo tee jariñoo ki gëlëm nag daa war a laaj ñaxam ñu wan ko yoonu bu ko nangoo nopp lu jariñoo nit nag na muy def ba jot ca la muy wut génn juróom ñi ki jug jëm ca la muy wut jaar ko ca yoon wa koy maye mel na kay dem ca jabar ngir yitte te yor njëg la ak ki jug jëm ca jabar ngir yitte te yóbbaalewul njëg ak ki jum ki jug jëm ca jaba ngir yee ngir yitteem te yóbbaalewoo njëkk tafa saa jot jaara ko ci randal ak ki jug jëm ca jaba te yóbbaalewoo njëg naam waaye fas na fa daan dooleem ba jot ca la muy ak ki jug jëm ca jaba ngir di fa dagaan dong ak sàkku ndimbal ku jëkk ki ak ku ñeenteel kenn mënu leen a tee jot seeni aajo ku ñaareel ki ak ku ñetteel ki kenn mënu leen a tax ci seeni aajo ku juróomeel ki nag bu dajeek ab tab aajo mën naa faju ba di jëwal ak moom daal di sooy ñaareelu njàngale bi ma ci xamal ñi am kilifa ne kilifa ku ko am danga war a def lim lay digal tey moytu lim lay tere loolu mooy warteefu njaboot ci kilifaam lay warteefu kilifa mooy di digle ak di tere bu ñu defee ñoom ñëpp ñu ànd jariñu bu ñu deful jaanam wàcc mu jariñu lay lore dal ci seen kaw ñetteelu njàngale bi ma ci xamal ñëpp ne ci digle lu baax ak tere lu ci la lépp yiw di juddoo adduna ak àllaaxira ci safaan bi ci la jëpp lor di juddoo ci àdduna ak àllaaxira ñeenteelu njàngale mi ma ci xamal kilifa yi ne am yërmaande ci njaboot gi moo gën ci ñoom di doxee safaan bi di xamal njaboot gi it ne topp seeni kilifa moo gën ci ñoom di doxee safaan bi juróomi juróomeelu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki sañ a digle ak a tere mooy ci xàmmee liy jariñe ak li baax di ko digle ràññee lu bon ak liy doore di ko tere waaye ku mënta ràññee lu baax ak lu bon luy jariñ ak luy doore kooku ndigalam ak i teram lu ne mën na ca juddoo juróom benn lu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki xam liy jariñe di ko digle xam liy doore di ko tere balaa am day tax ñi lay topp seeni xel di dal seeni xol di sedd looloo tax kuy digle baa muy tere war caa farla bu baax ba ñamu yilif seen xel di dal seeni xol di sedd mooy waral du ñu dugg fitna ak i rëngi-rëngi ak i ak i jaxasoo ak i yoqet mu des nag mayee leen ci ñeenti tomb bi ci jëkk mooy ku yàlla jiital teg mbir mbooloo mi ci loxoom kenn warul di xiiroog moom ak a ŋaayoo loolu ku ko def defuk tooñ tooñ nag rëccu rekk ci juddoo ba ñaareel bi mooy ku jiit kon ngeen am jàmm ak mucc ak noflaay te te ngeen moytoo def luy waral rëccu ak jooy ndax boroomam xel day téye boppam ba du dugg ci lee waral gàkk-gàkk ak i ndax-ndax di dij boppam ci njariñ yu koy jëral mbégte mu sax bu faaw moo tax waxi sëriñ Touba ji ñëpp ci war a bàyyi xel ndax ku ci tënku doo réer mukk te doo sànk mukk Serigne Touba nag suñ borom doxoo may mu tabax aw xeetu nit ni suñ borom bëgg ab jullit mel ne mu andi ñu projet mach tudde ko mashruu al fawsayni moo indi àdduna ak àllaaxira moo tax sëriñ Touba dafa dajeek contexte boo xam ne benn nitu yàlla dajewul ak moom ndax sunu borom dafa rocc ci loxo jullit yi doole yi àdduna ak mbootam teg ko ci loxo yéefar yi ngir xool la ñu def ndax dañuy rafetal te delluwaat ci seen borom ak fi mu leen dëddal ñu war caa jaar wala dañuy jaar fa yéefar yi ànd ak ñoom ba far sànku àdduna ak àllaaxira moo tax Serigne Touba bi mu ñëwee li mu def mooy wóor nit ñi ci al iraadatu wal himma te mooy fexe ba yàlla gën a leen lépp ne ko alxuraan waxe qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa asiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun taxsawna kasaadaha wa masaakin tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi wa jihaadin fi sabilihi fa tarabbasu xatta yaatiya allahu bi amrihi ci noonu la Sëriñ Tuubaa yara ay taalibeem wax leen ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine ci diine ji ci la defare wenn xeetu nit wu bees woo xam ne kenn mësula gis ñu mel ne ñoom ci bëgg yàlla ak pëstéef ak jikko ju rafet ak yar ak teggin ba mel ne saxaaba yi ñoo wàccaat ci pëstéef ak yitte ju kawe nag li tax mu am ndam ci liggéey bu rëy boobu mooy yetti mbir yi bu jëkk bi mooy ar ruuxaaniya ndax dafa fekk àdduna jëm jug ci almadda te mooy gëm matériel ba fàtte yàlla mu jëlaat xolli yi nàmmaat leen jëma leen ci yàlla ilallaahi bil quraani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu xaachon alwaaqiiyatu te mooy wàcc ba tolloog nit ñi woo leen ci la dëppoog liy dund li ñu dund jegle leen baax ak diine ba ñu mën ko dund te du leen soral xaatibu naasa ala qadri uqulihim walan yashhaada diina ahadun illaa xalaba walan yashhaada diina ahadun illaa xalaba moo tax moo daa woon nit ñi ci yërmaande yàlla ji leen xoole bëtu mbëggeel wa rahmati wasi'at kulla shay'in yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa haadiyan fexe ba musal leen ci doctrine alxadaasatu te mooy fexe ba ñu mucc ci at taxrib te mooy occidentalisation du ñu am comme complexe ci seen gëm-gëm ak seenu col ak seenu doxin dañu nuur li ñu doon te sëriñ bi wax na ne law tanassartu la daxatu naara wal iyaasu billahi taala looloo waral ñëpp maase dëgmal sëriñ Tuubaa xam ne mooy seen njëriñu àdduna alaaxira allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanifin bi dara bi ba ca topp mooy albasata albasatatu te mooy ñëpp koy mën a dund te du la sonal ñépp a ci mara jariñu amul kenn ku génn wa yastawi mubtadi'un wa muntahi fii nafyi wa xayruhu la yantahi teg leen ci ashratul mustaqim ba képp ku bëgg ku ko bëgg aju ci moom mu garanté la àjjana àdduna ak laaxira te wax na ne lépp lu ma bind ni ma ko waxee ni la ko suñ borom dogale wa huwa lisi jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu wax na ne sama lépp ak jaamu yàlla la wax na itam képp koo xam ne juyoo ngaa man suñu borom dana dana la li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada nee na itam képp koo xam ne yaakaar na ma suñu borom teyal na sa bakkan ci àdduna ak alaaxira taabat nufuusu man taallaqu biya dunya wa uxra zaaka fadlu rabbiya nee na suñu borom jéggal na képp ko aju ci man yaakaar ma waxfir li wax waxfir li jamii man bii taallaqu bi fadlin yaa samia nee na képp ku ku aju si man ku ne yàlla suñu borom musal na li ci seytaane moo tax lépp lu fi yàqu rek yàqu bakkan la waaye yàqu seytaane Sëriñ Tuubaa génn na ju najjayta man bi yata'allaqu maa mina shayaatini fa sukkur yasmaa nee na itam képp ku ko yaakaar dana tabbi àjjana kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza moo tax ca gànnaa dafa xëy bis wax sëriñ Aliou Sey ne ko Aliou wool fere yi ñu daje ba ñëpp daje mu ne li ma leen di doy de mooy suñu borom damaa xamal ne dana ko alliwi limal ma ci yéen yam Sénégal gumlim rek sëriñ bi na ko googu ba mu yàgg sëriñ bi na ko li ma ci julli mooy suñu borom damaa xamal ne balaa nëgëni si déwén danañu fekk ñuy delluwaat Sénégal ci ak ci yéen loolu nag li ma jublu ci wax leen ko mooy dama bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dikk ni ngeen di gise lii ni ngeen di gise loolu daane fii moo ko waxee ba booba nag ci kàttanu yàlla kenn du faatu boobu fekk na nag am na kenn ci taalibe yi koo xam ne dafa wér di ba ñëpp di ko xaaroo yaakaar ne day faatu waaye suñu borom dafa def mu wér ba Serigne Touba dellusiwaat senegal ba ñëw ci Jolof mu door a kon nag Serigne Abdou Lahad waxoon na ne Serigne Touba ñeenti mbir lañu gisoon mu itteel ko benn bi mooy diggam ak yàlla diggam ak alxuraan diggam ak rasuulullaay ba ca di Touba ñaanoon na suñu borom saxal fi kaaraange. musal ko ci lépp luy musiba te lépp lu mu fi ñaan yàlla suñu defal na ko ndax moo wax ne la hëwa habta maa kafal xutuba fa fa suqlahu fawqa raja fii kon tey bu nu dajee fii di ubbi yoon wii di Ila Touba te président Macky Sall amal ko kon day dëggal ne la Serigne Touba waxoon ne rabbi stajib waltu kamin maana woytu lada Touba lati bikatum naa fii ko bu ñaana suñ borom dëggal na ko kon Serigne Touba nee na kon Serigne Serigne bi nee na président mi ngi lay sant bu baax ci si ci sa yéene jure ji ci dëkkam bi def nga ci li nga man ak li nga mënul ba yàlla sottal ko tey ndax lii kat keroog ba ñu tax xeer wa ñi ëpp ci nii yaakaaruñu wax ne mën naa sotti ci diiru juróom-ñaari kon nag bu ko suñ borom dogal nii tey woon ngaa sant yàlla bu baax kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ku ma defal loo man ma defal loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la jomb kon nag sëriñ bi nee na faw mënee su laa ñàkk sant mënee su laa ñàkk gërëm kon nee na mi ngi lay sant bu baax ci turam ak ci turu mboolem jëbaru sëriñ Tuubaa gi ak ci tur mboolem yoon murid mi ngi yeesala cantam gii nag ci liggéey bu rëy bii nga xam ne defal nga ko waa réew mépp nga ko defal waaye defaral nga ko Touba defaral ko waa Touba Touba nag bu ñu ko wax Serigne Touba moo tax kon euh, sëriñ Touba kenn mësu koo liggéey di ko rëccu ndax moo wax ne képp ku ma liggéeyal binaa yashkuran wa azim qibali wa xidmatal ayaali turan aqbali kulli lazina ishtaxalu bi xidmati wa takfim gadan aza ka sadmati waxoon na ne na nga ma defal képp ku ma liggéeyal suñu boon defal ko loo xam ne képp ku ma liggéeyal dana ko ci ñeeb faw loolu kon firndeel na liggéeyam bu réy bi nga ko liggéey ci dëkk dëkk bu tedd bi te muy jëf joo ne amul jënn jëf ci wàllu sànce yu nu toll kon sëriñ bi nee na ku jëfal sëriñ Touba sëriñ Touba am na payu boppam te sëriñ Abdul Ahad Mbàkke waxoon na ne ku liggéeyal sëriñ Touba muri di amal nañ ba faw ndax njabootu sëriñ Touba gi du ñu sakki jëf ndax hal jasaa'ul ihsaani illa ihsaan sëriñ Touba dafa waxoon ci xasid ak haasa jasaa'ul ihsaani lil quddaami waqdi xawaa'ija lasina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu yow sunu borom na nga faj aajo képp ku jug ngir liggéeyal ma te defal leen seen bëgg kon nag sëriñ bi nee na nga sant bu baax te xam ne lii nga jëfal sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mi ko mi tax nga jëfoo gis na ko yoon wii nag nga ñëw di ubbi si tey ji mooy wu jëkk wu am dayu bii kon mii ngi la ci ndokkeel ci liggéey bi ndax njariñu réew mépp la ndax day lëkkale fi sori woon di jegale di jàpp ndal dem gi ak dikk gi kon waa du waa dëkk bi rek koy jariñoo waaye réew mépp la jariñ kon ubbi nga tey bunt bu rëy te gaaw ci suqali réew mi te Touba gi mu jëm Serigne Saliou Mbacke waxoon na ne yaakaar ju tas miinu ñëwul kër Serigne Touba Serigne Touba nag dëkkam bi wàccuwaay bi mu am ci dénn ak démographie ak ci koom-koom ba tax ñu war fee def sànc yu toll nii li ci jëkk moo dina Touba. dafa am wàccuwaay wu màgg ci Sénégal ak ci àdduna bi lu mat ay millions yu bari seen yaakaar nekk fi ndax seenu sëriñ moo fi dëkk at mu nekk ay millions di fa daje bàyyi ko fu ne ci àdduna si Touba nag nekk ci diggu Sénégal di xoolu Sénégal nekk motoru Sénégal kon ku fi indi yoon wi daanaka lëkkale nga Sénégal gépp muy penk bi ak sow bi ak gànnaar gi ak Saloum bokk na ci li yombal jokkoo ci réew yëpp muy dëkk boo xam ne dana indi lu bari ci koom-koomu réew mi ndax ay gor yu nangoo liggéey te yor leen ci jàmm ak jom ak ñeme coono di demal seen bopp di dunde seenu ñaq nii leen ko Sëriñ Tuubaa diggale wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin bi xayri wax mi am na benn borom xam xam bu mag bu ñu wax Hubayriyaan wax na ne 1958 li nga xam ne moo ñor ci biir Sénégal ci réew mi ci wàllu mbay 60 pour cent yi murid ñoo ko def nee na loolu nag day waral njàmbaar gi nga xam ne murid am nañ ko ba fii ne mooy njàmbaar gee nga xam ne am nañ ko ci ne bitim ak ñee seen ñee daan seen doole ci mboolem Sénégal yi lii lépp nag li ko ko may mooy nongu natt bu ko suñu borom dogaloon ci moom. te nee woon yàlla suñu boom de ba ma koy liggéey liggéeyal jombalu ko waaye ba may fay fooxalu ma kon nag payug yàlla amut fenn fu mu yem wala lu doomu aadama mën a xalaat ci xeram lu dul ne coobare suñu borom la kon bi Serigne Touba nekkee ci yéen Jolof ci loxoy tubaab bi commandant de cercle bu Louga dafa bind benn arrêté ci moom le 7 mars 1909 wax ne Serigne bi mayatuñu la li la wër ci nekk dëkkuwaay bu mu weesu ñaar fukk nit ñi lay seetsi ci bis yi bu ñu weesu juróom fukk te dañu te dañuy ñaan permis doon a ñëw bala ngaa wubbeeti benn daara ngir jàngale danga am autorisation bu jógee ci commanda bu Louga tey ci tey jii fii ci Touba lu ma ñaari million ñoo fi dëkk fii nu toll li fi nekk ci daara alxuraan mën na mille trois cent cinquante te bokkul ak école yi diine yi li fi nekk ci ay jumaa yu julli ay juma mën na téeméer ak ñaar ko li fi nekk ci jàkk ay téeméeri téeméer la mu jàngal nu wa man yatawakkal ala llaahi fa moo tax ca njaareem bis commandant de bi dafa ñëw wax sëriñ bi ne ko ñun de dañoo amu tey dangaa def tooñ gu rëy rëy ndax mboolem lu ñu mas lu ñu la masate ci nattu ay njort la woon waaye tey dangaa def loo xam ne yoon da ko tere ndax mooy ñii nga jële ay jaam mursani jën leen indi leen senegal sëriñ bi ne leen fa leen jënd de seenu tere indi àggagu fa bi ma leen indee fii itam goreel leen a tax tubaab bi ne tekk ba caag mu ne ko yow de nii nga def bu ko ñëpp defoon ak njaab jeex ci àdduna mu ne ko man lu may doyee ay jaam ndax ko gor yi nangoo doon sa jaam looy doyee jaam mu ne ko ñun de dañoo amul jaaxle ndax juróomi dërëm yi ñuy laaj ci impôt di ci sonal nit ñi leen ci teg ay daan yooyu nanguñ koo jox yow nga laaj la ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu lay jëli ak di la wër te mënuñu làgg si la ko jox sëriñ Touba ne leen li ko wóotale de mooy yéen li ngeen di laaj li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla joxu leen joxuñ leen ko ngir yàlla yéen itam deful leen ko ci yàlla man nag li ma leen di laaj laajuwa leen ko dama leen ko laaj ngir yàlla eh, di ko defal ci yàlla looloo ko wóotale kon nag Serigne Touba eh, noonu moo noonu ko suñ borom defaloon kon loolu moo tax lépp lu waaye sàkku ci moom ni nga ko bëggee ni la ko sunu borom di dogale kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barke sëriñ Tuubaa lii mu doon buntu xéewal bu dul tëjooti ba faw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni itam sag ci moom nee na am na tàmbali waaye amut fu mu yem ndax nee na yàlla suñu borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaatu jitaayu sëriñ Tuubaa nee na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko waajur jox ko ab cër boo xam ne dara mënu ca dolli ko bi yàlla dogalee itam mu nekk fi Sëriñ Tuubaa nee na nga yeesal loola feddli ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yem kon nag nee na mu ngi lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla suñ moom jàppale la dimbale la ba mboolem somb yu rëy yi nga xam ne am nga ci réew yi yàlla katt na la ba somb yooyu yëpp nga àggale ko ba tëj ci bëtam nee na moom ci boppam nag mi ngi lay sant ndax noonu la ma ko waxee ci làmbañam ndax nee na ma li mu bëgg kat mooy ko ko ñaanal moo mottali ay yéenam kon nag faw ma ñaana ko yàlla dimbale ko mottali ay yéenam nee na li mu koy jeexale rek moom amul loolu Serigne Touba rek la yaakaar moom la am mooy léppam.